wasalaatu wasalaamu ala ashrafi almursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa sahbi wa man tabiahum bi imaanin wa ihsaanin ila yawmi ddin mbokk yi di mbokki jullit yépp assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ci kàttanu yàlla subhanahu wa taala ak lañu dellu seete ci seen jotaayal bopp ñu bokk ko yéen mooy sunu daara di seen daara ji di albayaan muy jibe fii ci télévision nationale ci RTS 1 aljuma ju jot ci waxtu wi li feek muy soob sunu boroom subhaanahu wa taala ñu di koy séqit ak boroom daara ji ci boppam muy ko baax ki di imaam alxaaji ahmad Diop seen wéttal di sunu wéttal ñu di ko ñaanal yàlla subhaanahu wa taala dollil ñu ci moom wér ak wérle mucc ak mucc lek dund ak dundule boole nu ko ak moom ak bépp jullit ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa di tabarakallahu delloo nuyoo yeeg ziyaareeg ñaan yi ci soppe yi jotaay ñu tànnal ko seen bopp def ko muy seen jotaayal bopp def ko muy seen daaray bopp sunu goro di sunu xarit kolonel El Hadji Cheikh Sar Thiam tabarakallahu wóolarante lool ak albayaan ñu di ko ñaanal yàlla dollil ñu ci moom wér ak wérle mucc ak mucc léeg dundu léeg ak dund ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak fa tabarakallah wasnul xaaliqina sunu sang di sunu jigéen bu baax bi di sunu mama fatima kinne si mu sayid cheikh ahmed tidiane si al maktum radiallahu taala anhu ñuy bég lool ci ay ñaanam di ko delloo kemi ñaani di ko dale la loolit sunu xel fa tabaarakallahu sunu xaaliqina ci teewloom ak ñaan yi mu nuy yónnee fu mu toll ñu di ko delloo kemi ñaan ak uh, tabaarakallahu bàjjeenam di sunu bàjjeen di sunu sangit soxna Aja Faatu Si Dabaax mu sunu maam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz Si radiallahu anhu ñuy bégg fu ñu toll seeni ñaan te di leen delloo kemi ñaan di dalalee sunu xarit seen teewlu ci albayaan naka noonu it sunu bàjjen di sunu sangit di soxna um aja umul xayri si mu sunu maam Cheikh Alxaaji Abdul Aziz radiallahu ñu ngi béggee seen ñaan te di leen delloo kemi ñaan gi di ñaan yàlla ci mbaaxam subhanahu wa taala yàll ñu boole nangul ci daraje yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak it sunu sangit di sunu tabarakallahu jigéen bu baax bii di soxna aja sofiyatu si mu sunu baay sayyidu jamil radiallahu taala anhu ñuy béggee fu ñu toll seeni ñaan di ko dalalee sunu xel te di leen delloo kami ñaan yi di ñaan yàlla ci mbaaxam subhanahu wa taala yàlla nañu boole nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak euh, sunu jigéenu boppit aja xadijatu jaañ madam boy ca somon ca ngappuru it waaye ca gàmbi it bu ñu neexee ak ku baax ka di son excellence alxaaji ibrahima saaxo booy ñi bégee seeni ñaan fu ñu toll di delloo kemi ñaan gi di ñaan yàlla subhanahu wa taala ci mbaaxam yàlla nañu boole nangul ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam su ko defee rek ñuy wéy ci fàttalente ak layente biir yi gën ferawati ci tolluwaay yi ñu tollool nag te mooy dëkkmal gi jullit yëpp maanaam xol jullit yëpp dëkkmal barab yu sell yu màgg ya te mooy màkka almukarrama ñii dem ak fa tabaarakallah ahsanu xaalixiina ñi demul ak kuy jullit sa xol armal na dëkkmal barab ba ci fàttalente yeeg layente biir yi tamit ñu di ci ñaanal bu baax fu ñu toll sunu imam bu baax bii di cheikh alxaaji rawxaan mbay yal na yàlla dollil nu ci moom wér ak wérle mucc ak mucc leeg dund ak dundule boole nu koog moom ak bépp jullit ci daraja yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallama ñu koy mas di seedeel tey wéy ci di ko koy seedeel fu waxtu yu tolloog ñun mu tollole fa ay xutbaam yal na yàlla subhaanahu wa taala boole nu nangul te defal ñu dégg ak topp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam di bégee noonu it sunu séddoo di fa tabarakallahu doomam ju baax ji di soxna Adja Ndeye Saly Mbaye fa tabarakallahu ak sunu Adja Fatuma ak secrétaire am bu baax bi madame Niang Adja Mariama Diouf ñuy bégge seeni ñaan fu ñu toll te di leen delloo kemi ñaan yi ak fa tabarakallahu soxna Adja na fi gasama ak sunu ndeyu daara ye yépp ci xutbaam bi mu jagleel aju yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nu yàlla royloo ci moom alayhi salaatu wassalaam mbooleem acc di ñetti acc yépp moo ko jàngaleel boppam joxel ci boppam it ndigal yaa ngi dégg ci xutba bi Cheikh El Hadj ya ibadallah yalzamu ala alxaaj iqtidaan bi sunnati rasuli alayhi salaatu wassalaam fi adaa shaair أن يغذي روحه بالذكر والتلبية وطاعة الله عز وجل بعيدا عن شواغل الحياة الدنيا ويكون في تلك الظروف واعيا بمغزى الدعوة بمغزى الدعوة التي wajjahaha rasul sallallahu alayhi wa sallam ila kulli alxujjaaji alladina yatuuna baadahu li yaqtaduu bihi fi adaai almanasiki fi adaai almanasiki xiina qaala sallallahu alayhi wa sallam xuzuu anni manasikakum wa fi dalik dimniyan توجيه الحجاج إلى الاقتداء به عليه الصلاة والسلام في اختيار أفضل أنواع الإحرام من الثلاثة التي هي الإفراد والقران والتمتع لقد تجلى أنه عليه الصلاة والسلام اختار اختار al afdala minha wa huwa al ifraadu wa lamma غادروا المدينة المنورة ووصلوا إلى ذي الحليفة حيث كانوا ينتظرون أوامر الرسول عليه الصلاة والسلام وتوجيهاته للشروع في أعمال الحج وصل وخيرهم alayhi salaatu wassalaam bayna anwaaci lixraami althalaathati bi hadihi alcibarat man shaa an yuhil bicumratin falyafcal wa man shaa an yuhil bixajjin falyafcal wa man shaa an yuhil bicumratin wa xajjin falyafcal ثم إنه صلى الله عليه وسلم لما أراد الإحرام اختار لنفسه صلى الله عليه وسلم الإفراد قائلا لبيك اللهم بحج صلى الله تعالى عليه وسلم maanaam daal ci fàttalanteeg laayante biir ñetti aj yëpp di li ñuy wax ifraad ak bi ñuy wax tamattu ak bi ñuy wax qiraan bu ci nekk yonent bi moo ko jàngale joxe ci ndigal ni ku ci neex tànnal bu ci boo ci tànn rek tabaarakallah waxsanul xaaliqin eh, tegu nga ci yoonu ac ca na mu ko diglee ak ca ko yàlla subhanahu wa taala bëggee ba moom ba mu waree tànn mu tànnal boppam bii di ifraad kon ñetti yëpp boo ca tànn baax na boo ca tànn wér na boo ca tànnit tabarakallahu tànnu na te defe nga ko ci ndigalu yonent bi alayhi salaatu wassalaam moom nag mu tànnal boppam bi ñu tuddee ifraad daañu wax si léegi al ifraadu ci aj mooy lan sallallahu taala alayhi wasallama te yaa Aïcha radiyallahu taala anha nee na ba mu dee dawal yéene moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci aj gi aj yaa Aïcha nee maa ngi ci wetam nee na maa ko dégg mu wax ca làmminam wu sell wa labbayk allahumma bi hajjin yaa Aïcha nee na gi di ifraad moom la tànnal boppam joxe ndigal ci yépp sallallahu taala alayhi wa sallama te ba muy tànn loolu it yaa Aïcha seede na ko wa shahida it bi dalika kibaaru saxaabati ka abdillah ibnu umar wa abdillah ibnu abbas wa jabir ibnu abdullah wa ummi lmuminina asayidati aïchata radiallahu anhum ñoom ñëpp fa tabaraka allahu euh, seede nañu loolu te dégg nañu mu wax ko ci làmminam alayhi salaatu wasalaam di làmminam wu sell wa waqtada bihi fi tabannil ifraadi alxulafaa urrachidun abu bakrin wa umar wa usmaan ñoom ñëpp alayhim ridwan ifraat googu la ñu jiitee tamit ginnaaw yonent bi bañ ko doon ne ci seen xilaafa ñoo ñu doon tabaarakallahu jiite ca aj gay yépp moo tax ginnaaw dal sant gi yàlla subhanahu wa buur bi di borom bi farataal ci ñun jaamam yi aji néegam ba te mooy kaaba gee ca Makka te lamboy ormaam ya jox yonent bi sallallahu alayhi wa ndigal ci wax ko mu aj néegam ba joxaat ko it digalal woote ci mboolem ñi ko gëm ñu aji néegam ba yonent bi sallallahu alayhi wa wuyu yàlla subhanahu wa taala ca ajali ko néegam ba waxit teg ceen ni alayhi salaatu wassalaam xudu anni manasikakum laalliya la axujju bacda aami haada seet leen xool leen ci man nu ñuy aje ngeen defe ko ni ngeen ko gisee ma ko niy defee ca ajam gu mu ga la ko waxoon ndax amaana kat dootuma fi teewateeg yéen ci lu deme nii di aj gi yàlla subhanahu wa taala kàddoom yooya sallallahu alayhi wa sallam ñàkkul ko ci yàlla yëgloo ci wàllam ba tax mu ni amaana déwén duma fi taxawaat ak yéen ba aj galaata dellu si sallallahu alayhi wa sallam wuy sunu boroom subhanahu wa taala su ko defee ci kaw loolu dafay daal di war ñuy jubale nit ñi ca na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ajee woon te moo di ñu orienté leen di mboolem ñi aji na ko ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defe woon digaloon ko it nit ñë ci xeeti ac yi di xeeti ac yi muy ifraad di qiraan di tamattu bu dee ifraad mooy niñ ko waxe léegi mooy bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam aje woon nga xam ni boo ko dee armalal aj kese nga ko yéeneel doo ko lëkkale ko umra bu dee xiraan nga fas yéene aje moom danga koy boole ko umra ci boo koy yéeneel bu dee tamattu moom umra rekk nga koy yéeneel tamattu nag mën nañu wax ni euh, moo ko xiraan li leen xaw a wuutale tabaarakallahu ndax bu ngeen ñëwee ba màkk yéenay bokk lu ngeen di def ci lu jëm ci wër kaaba ga bokku leen yéena nag waaye yéenay bokk baagante it safa ak marwa bu ngeen noppee ci loolu ki doon def aj gi wax tamattu moom umraam jeex na foofu dafay daldi xaaraat ba bés ba ñu naan yow ma tarwiya di juróom ñetteelu fan ba ci weer wow di weeru aj weer wi di weeru aj juróom-ñetteeli fan ya nga xam ne ca nit ñi di génn màkk nag ngir dem muna ca lay armalee waate armaluk nag acc moom di kii nga xam ne moo def tamato ñu di ko fire léeg-léeg aju bànneexu ndax noonu ngay gaawal teqalikook sa armal di xaar juróom-ñetteelu fan ba nga demaat armalaat armaluk acc àndaat ak gaaña nga xam ne kooku dina dawaat safa ak marwa ñaari yoon moo tax bari na ñu lay yombalal fa tabarakallahu yëf yi ci tamattu ni dana la may nga mën noppalu tuuti mën nga def lii mën nga def lee waaye bés bu mujj ba yit euh, dina la xawa a sonolaat ndaxte ba nit ña di wër kaaba ga rekk dem seen yoon yow di nga wëraat kaaba ga baagante ji waat it safa ak marwa bu dee xiraan nag nit ki dafay yéene ca aj ga fa tabarakallahu amaalee ca umra moo tax ñaar ñooñu dikki def xiraan ak ki def tamattu dañu leen di laaj maana lu mel ni impôt ñoom ñaar nax lan dañoo dugal ci aj gi lu yamul ci aj gi rekk ki def ifraat nag moom di wéetal aj gi niki ñuy déggee léeg-léeg ñu naan ifraadullahi bil ibadati booy jaamu yàlla subhanahu wa taala nga wéetal ko ca kon ifraad mooy nga wéetal sak aj boole woo ca leneen xanaa aj rekk ba mu jeex soog a def leneen niki dem fu mel ni Tan'im di masjidu ya Aïcha radiyallahu anha armale fa gannaaw bang fa sango pour mën a def sa umra boobu nag la ñu wax ni moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam aje woon donte yëpp wér na ndax moo ko jàngale moo ci joxe sallallahu alayhi wa sallam ndigal baax nañu kon mbooleem ñetti xeeti aj yi ba ca yonent alayhi wa sallam mooy aj gi ñuy wax ifraad te ajug ifraad googu la day fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqin magi saxaaba ya ridwanullahi alayhim ajmain di ponkalya ya tabarakallahu di abdullah ibnu omar abdullah ibnu abbas jabir ibnu abdullah ak sunu yaay aisha radiallahu taala anhum ñoom ñooñu dey nee nañu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam acc gi gënal nee mooy nee nañu mooy ifraad aj goo wéetal te ku seetlu ni loo ni boo ko defaalee cik aj ànd ak la muy ak la baax yépp dute mu mel ni dañu lay teg lempo mën nañ caa dégg ni kon acc mooy ifraad yeneen ya ñu la tegee rek lu mel ni lempo mooy ya nga xam ni rek euh, na nga ni naa profité rek boole ko ci mooy wone ni aj daal mooy ifraad yëpp wir na yëpp baax na fa tabaarakallah sunu xaalixiina boo ca tànn am nga ca ndigalu yonent bi sallallahu alayhi wa di ndigal li mu jële ci boromam subhanahu wa taala ñoom saxaaba yooyu la it ridwanullahi alayhim ajmain roy nañu ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te it alxulafaa rachidun di ñeenti xalifa yi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxoon na leen alaykum bi sunnati wa sunnati xulafai rachidina min baadi na ngeen topp sama sunna sii ak sunnay samay xalifa yu jub yii te kuy roy ci ñoom jub di ñii tabaarakallah sunu xaalixe ne di toogee sama gannaaw toogaayu fa tabaarakallahu sayyidina abubakrin siddiq radiallahu taala anhu sayyidina Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhu sayyidina Usman ibn Affan ridwanullahi alayhim ajmain saxaaba yii de topp nañu yonent bi sallallahu alayhi wa ci roy ko ba topp ko ci adopte aj yi ñuy wax ifraad def ko muy aj gi gën ci aj te ñoom ñii di sayyiduna Abu Bakrin di sayyidina Umar di sayyidina Usmaan ridwanullahi alayhim ajmain ñooñu dey di sang yi lislaam yi xëccoon nañu xujjaa ci yóbbu leen ci aj ànd ñoom defee ko ajug ifraad diirub ñaar fukki at ak juróom sooboon nañu jaami yàlla yi subhanahu wa ci ñuy aje ajug ifraad te it ñaari ilimaan yi di imam yu mag yi di imam malik ibnu anas ak imam shafii radiallahu taala anhuma ñoom day jàpp nañu ni ifraad mooy aj gi gën ci ñetti aj yi ndax ifraad mooy xeetu aj gi nga xam ni ci ñetti xeeti aj yépp du soxla ci kiy aj ñu naan kaan rendil gàtt ngir sa aj baax wala wooral ñetti fan fii ci màkka ak juróom-ñaari fan boo jubbe boo ñibbee ngir sa aj baax te aj gii di ifraad moom boo ko defee na mu ware kenn tegu la ca benn lempo ndax dugaloo ca lenn luy tax ñu di la teg lempo su ko defee nag euh, fa tabarakallahu asnul xaaliqina su fekkee ni euh, da def xiraan di aj gi nga xam ni da nga caa yéene boole ca aj ak umra wala nga def tamattu nga xam ni danga umra ba noppi daal di armalaat ngir aj lépp ci jamonoy aj gi su boobaa nag yow la ñuy imposé ci waxin nga maanaam fay lempo te mooy di nga rendi wala nga woor ñetti fan ci aj gi ak juróom-ñaari fan boo ñibbee loolu fa tabaraka la asnul xaaliqina nekk na di loo xam ni lu ñu xam la yépp nag ñu waxaat ko baax na de yéppit yonent bee ko jàngale te ku ci def benn ci ñett yi ci ndigalam goo ko defe waaye moom yonent bi sallallahu alayhi wa ajam gii mu doon waxee xuzu anni manasikakum xool leen ci man ni ñuy aje yaa Aïcha nee na ba muy dawal yéeneem day di tudd aj ga muy aj ca làmminam mu sell wa nee na ifraat la ko defee alayhi salaatu wassalaam kon nag mbokk yi di yéen ñi aji néegub yàlla subhanahu wa taala nañu bokk xam ne ñu ci bari ci yéen dañuy sori lool tànnuk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci loo xam ni amuñu wennu lay wuy tax ñu di ko def ci tànn gi mu tànnal mu tànnal nu moom sallallahu alayhi wa yi mu ñu tànnal te mooy ñetti at yi boo ci def baax na kon bu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tànnalee boppam ifraad muy lu wér ci waroomi xam-xam yi waru leen ko di ni ko ñu bari ci xujjaa ci di defee te du amit benn lay léeg-léeg wuñ ci teg ci tànn gi ñu tànn leneen te yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki gën ci ku masa aj di képp ku masa wër néegub yàlla ba sallallahu alayhi wa sallam bu tedd ba yonent bi alayhi salaatu wa salaam moo la gën yépp kon mbokk yi di jaami yàlla yi subhanahu wa taala ñu bokk xam ni képp ni yéena nga aj dafay daldi war nag ci yow moomu yéena aj nga am yitte ci topp orientation yi nga xam ni yonent bi sallallahu alayhi joxe woon na leen gën fee rawati ci jamono yi nga xam ni yaa ngi nekk ci biir di joxe màndargay aj yi lépp lu ci yàlla subhanahu wa taala digle nga fexe ba matal ko jëlit yàlla subhanahu wa taala teg ko ci sa kanam ca ba ba ngay duggi ci mbir mi dëgg di mbiri aj ngi nag ba ba ngay tawaaf ba ba ngay teewa ji taxawaayu arafa lépp nag nga jël yàlla rekk subhanahu wa taala teg ko ci sa kanam dina ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngale woon ñu teg ci xamit ni ci anam yii day la yonent bi sallallahu alayhi wa sallama woon ca taxawaay arafaam ju mujj ja di xutbaam bi nga xam ni jamono ngi koy wax fa tabarakallahu ba tey jamono ngi ko yéemit ba bisub tey ndax jamono ju ñëw xutba boobu ànd na ak yow mu wax cay mbir di yoo xam ni alayhi salaatu wassalaam mooy mën a tax ba dunduk nit ñoŋ ci kaw suuf ba dund giinu booleeg àdduna mën a nekk dig dund digoo xam ni dund gu rafet lay doon dund gu teey lay doon di dund gu tegu ci jàmm tegoo ko ci dëgg yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca jaami yàlla yépp fàttali googo mooy daw ba ba addunay tukki ñuy jël xutbaam boobu di ko teg ci sunu kanam keroog la fa jàngale wax fa araam goo xam ni araam na ko ci ñuy tuur deretu jullit deretu jullit kenn waru ko tuur te mbokk yi waxuma la sax tuur deret waaye bañ bañ jullit rekk bokk na ci liy waral nit génn ci diine waxuma la tuur deretam waaye bañ ko rek di mooy bañ jullit bokk na ci yiy waral nit génn ci diine yonent bi sallallahu alayhi wa sallam teg ca waxoon ni képp ku saaga jullit wàcc nga yoon te moo di fasiq nga wal iyaazu billah képp ku xeex jullit jóg rekk ngir xeex jullit loolu moom kufru la yàlla nañ ci yàlla boole musal ci yépp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam fàttalee na it moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ca xutbaam booba keroog xaraam gi nga xam ni dundee riba xaraam na ko fàttali it sallallahu alayhi wa sallam gumu xaraam jariñoo alalu jàmbur ci lu dul teeyuk bakkenam waxoon na keroog sallallahu alayhi wa ni jigéen ñi nañu xam ni ameel nañu àq góor ñi nañu ko matal tegaat ca waxaat ñi ni góor ñi it amel nañu àq jigéen ñi ñoom nañu ko matal saa bu la subhanahu wa boole jigéen muy sa soxna nang ko toppatoo nang ko yëg te it nang ko taxawu taxawu gu mat te matale ca sa kemtalayal kàttan di ci ni ko lislaam bëggee leeral na it keroog sallallahu alayhi wa sallam ni ci njàngaleem yooyu nga xam ni moo fii des de jëriñ ba ba addunay tukki ba ci wàllu miraas ndax wax na ni xam-xamu miraas day moom la sama xeet di jëkk ñàkk loolu nag waxinu xam naa kuy soññe pour ñu farlu ci ndax bu taxawaay amul rek mu dem bu taxawaay amul rek mu dem ñu bari sax ñu ko mën nangootuñ cee dugg nax yi xew ginnaaw gi nga xam ne rek doo mën a firi doo xam daal ba fa muy mujje da ngay mujj yow rek taxaw fële alayhi salaatu salaam ji wax keroog dénkaa na ca góor ak jigéen mag ak ndaw doom ak jabar rakk ak mag doomu ndey ak ñépp yonent bi leeral na ci miraas ni yàlla subhanahu wa taala képp ku war a doon ku ne lay sa wàll yàlla subhanahu wa taala leeral na ko ci alquranul karim di yoo xam ni kenn warul def nag lu wuuteeg loolu wax na it keroog sallallahu alayhi wa sallam ni ngëneel nañu xam ni nekkul ci kenn ci kaw kenn di rekk kenn gënul sa moroom lu dul ragal yàlla subhanahu wa taala ku la gën a ragal yàlla rek kooka moo la gën te ñéppit alayhi salaatu wasalaam nee na yàlla dina leen taxawali ëllëg laaj leen ca yañu nekkoon ya doon leen jëf te na ngeen xam ni way gëm ñépp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na nañu yëg ne ay mbokk lañu xutbaam booba ba mu jeexee mu waxeek ni mbooloo ma lu mu ca teg hal ballaxtoom ja ndax jotal naa ndax jotal naa lima ma yàlla yónni woon te itamit daañu leen laaji ëllëg ci man sallallahu alayhi wa sallam su boobaa lan ngeen di wax ca kanamu buur bi bu la laajee ci man qaalu nashhadu annaka ya rasulallahi qad ballagta wa addayta wa nasaxta jotal nga laaye nga biir xeet wi sallallahu alayka wa sallam te itamit lépp loo xam ni waroon nga nu nga nu wax nga nu ko dégg nañu yëpp te daañuy def yëpp sallallahu alayhi wa mu ni kon nag bu mu taxawati na ngeen ma jottalil sallallahu alayhi wa muy dem jottaleem googu muy dem nag moonu boole lii tey ak lu mel ni lii ak ñu koy defee feneen imaam ye ca jumaa yak jàkk ya kilifa diine yi fa tabaarakallah sunu xali xëy na ca kanamu njaboot ga ñu koy jottalil rek sallallahu taala alayhi wa sallam su ko defee muy dem te bañ a taxawati et muy tàllal baaraamu taayam ba di wàcce ndànk ca kaw doj wa nag naan allahumma ashhad allahumma ashhad allahumma ashhad yàlla seedeel yàlla seedeel yàlla seedeel alayhi salaatu wasalaam mu bokk ca njàngaleem ya ñuy fàttali di waxaat ni ifraad qiraan tamattu yépp wér yonent bi sallallahu alayhi wa bu ci ne moo jàngale nuñ ko defee moo ca joxe ndigal ndigal la tamit mu ngi ca dëglu boroomam ndax boroomam moonu wax ni lépp lu mu leen digir dikke dikke digal leen ko def leen loola wa ma aataakum rasulu fa xuduhu kon ci ndigalal yàlla la ko teg yépp wér na yépp baax na waaye nag nañuy ëgsi nag ci di wax ni moom mi ngi tànnaloon boppam bii ñuy wax ifraad moom la tànnaloon boppam sallallahu taala alayhi wa bu ko defee ñuy war a xam ki xës ba armal muy góor di jigéen am na yoo xam ni dañ la koy tere am na ca yoo xam ni góor rekk lañ ko tere am na ca yoo xam ni góor ak jigéen lañu boole tere leen ko am ca yoo xam ni jigéen rekk lañ ko tere fa tabaaraka laa ahsanul xaaliqiin bu fekkee ni yu ñuy teral la boo xësee ba armal te boole ko góor ñi jigéen ñi ñu bokk ci yem mooy juróom-ñetti yëf yi ñuy bëgg a wax si bu jëkk bi mooy izalatu shaari mooy dindi kawar ki wat ko mbaa kawar daggee ci yow ngay góor ngay jigéen yéena ci bokk yem ñoom ñépp lañ ko tere moo tax ñu bëgg ngay watu bala nga sangu sa càngaayal sunna sa armal watu ba kabar goo yaakaaroon ni mën na wat dagg ci yow nga wat ko ba mu set ndax kawar warutul dagg ci yow boo xësee ba armal te waro it watu wa taqlimul avafiri dootoo lelli say we dootoo ci dagg dara muy góor di jigéen ñoo ca bokk yam ci tere gi wastimaalu tiibi dootoo laal gëtt te mooy parfum moom it góor jigéen ñoo ci bokk yem wa ziwaaju awi taswiiju doo fa takk jabar doofa fa maye jabar boo jigéen kenn du la fa takk boo xësee ba armal diirub la ngay armal boo dee góorit doofa takk jabar te doo fa jabar wal mubasharatu bi shahwatin dooto jonjoo ak jigéen ci bànneex jabara tax muy wax nag bu dee jigéen sa jëkkër a tax muy wax nga armal mu armal yow fële moom fële kon ñàkk jonjoog jigéen ci bànneex jabara tax muy wax de dootoo ko def tere nañ la ko su boobaa bu dee jigéen tamit tere nañ la lu ni mel ci sa jëkkër bu dul jabar du jëkkër nag bu fa amee ña ko fa def dey sëpp nañu seen kàmbu alkande te dara mënu leen caa tee tàbbi ji wala yaasu billah ubbil nañu seen bopp it bunti jaanama yaa nun ci yàlla musal ba faw ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam fa tabaarakallahu asnul xaaliqin bu juróom benneel bi mooy rekk kom bi ñu wax rekk booloo ci sëy ba tey jabar moo tax ñuy wax wala bu dee jigéen mu ànd ak jëkkëram bu gën xëse ba armal dootu leen boolooti ci wàllu sëy yow fële moom fële ak euh, rab wu ñu wara lekk di rabu jéeri niki yu ñuy rëbb doo fa rey benn ca yooya doo ko fa def dañ la ko fay tere wa qatlu saydil barri almakuul rab woo xam ni niki bu ñu wara rëbb rey ko lekk ko la su boobaa dañ la koy tere doo fa rey benn ca yooya doo fa dagg yit xobu garab wa qatcu shajaratin aw nabatin walla nga buddi fa ñax walla lu ànd ak garab doo fa dagg ñax doo fa buddi ñax doo fa dagg xobu garab ba ci sax forbant yu ndaw yi ca suufas màkk te fekk yaa ngi armal di leen dammat yonent bi tere na ko sallallahu alayhi wa sallam ji yëpp tere nañu ko góor tere nañu ko it jigéen et su ko defee bu dee yi nga xam ne nag góor rekk lañu ko tere jigéen bokku ci ñaar lañu bu jëkk bi mooy lubsul maxiiti wal muxiiti sol lu ñu ñaw boo dee góor tere nañ la ko waaye tere wuñ ko jigéen moo tax ñu mën a sol seen rob yooyu ñu ñëw wala seen jupp yu yaatu yi tabarakallah waaye sol lu ñu ñaw ak takk mbaa ràngoo loo xam ne daf lay peek tere nañ ko góor waru koo def wa taxtiyatu rësi bi mulaasiqin ak nga muur sa bopp moo xam kaala la moo xam koppati la nga xam ne dafay takkook bopp bi loolu it tere nañu ko góor du sol mbaxana boo xësee ba armal doo jël tamit kaala di ko teg ci sa bopp lu naaj wi tàng-tàng bàyyil noonu bopp bi lu cay taq nag la wax kon nga déggee ci ni parasol kenn aayawula ko ndax du laal bopp bi takku ca luy wër tamit di peek moom lañ la tere nga takk ko boo dee góor kon nga dégg ci ni kon xëj na takk lonet bokk ca ndax wërul di gën a wóor daal mooy lu mel ni montar comme dafa wër tikku jara bi ak lu mel ni jaaro dafa wër baaraam bi yooyu li gën a wóor mooy nga dindi ko yooyu mooy yi nga xam ni moom la tere góor bu dee yi ñu tere jigéen it ci bu xësee ba armal ñaar la mooy euh, satru wacci hiha muur sa xar kanam nii comme ñoonu ngay gis ñoo ñu fonk lool seen aada nga xam ne bu ñu soloo tey jigéen foog dañuy muuraale seen kanam ak voile yu mel noonu boo xësee ba armal tere nañ la ko yow jigéen bàyyil sa xar kanam mu feeñ su ko defee tere nañu loolu jigéen boo xësee ba armal bur muur sa xar kanam wa lubsu quffaasin bul sol gant tere nañ la ko yow jigéen doo sol gant tabaarakal da ngay bàyyi noonu say baaraami loxo ñiy feeñ loo ci def nag ci yooyu mu lay wax si li ñuy wax alfidiyatu te moo di euh, li koy war a jot maanaam li nga koy jàngee ba mu baax bu fekkee ni da ko def ci kaw fàtte wala mu dal la ci kaw njuumte yu demee noonu nga bàyyi fa warteef boo xam ne ci kaw fàtte la mbaa njuumte mbaa nga juum def fa lu ñu la tere ci kaw fàtte mbaa njuumte di lu ñu war a jàng nga xam ne da koy repare fa tabarakallah asnul xaaliqiina mu nekk di war a tolloog fukk ak ñett moo xam loo toggoo def ko la ci kaw njuumte te fekk tere nañu la loolu bu dee li ñuy tudde nag bàyyi lu la war bu kii acc bàyyee warteef di ci warteefi acc moom dañu koy tànnaloo ca jànga ci mu wut gàtt rendi ko walla mu woor bu fekkee ni dafa nekk nag di ku amee ngànt loo xam ni a sharia nangul na ko ko di lu tax mu bàyyi warteef ni ki fàtte ak nuñ ko waxe léegi wala juum def wala nga toggoo lu ñu tere ci biir aj gi su la wax ni boo ko defee ci kaw fàtteeg njuumte di nga jàng waaye nag fala yësam doo ca am bakkar waaye nag la budde minal fidyati a ah, du tee nga jot nag maanaam foog nga def nag loo ko jange ba mu baax bu fekkee ne dafa bàyyi nag warteef wala mu toggoo jëf ju ñu ko tere fekk nag moo ko tey def ko àndul ak benn ngant su booba war na ci moom mu jot waaye boole ca it am na bàkkaar ndax jëmmi tey def ga am nga ca bàkkaar ki armalit mën naa jàng ci lépp lu ñu tere mu toggoog loola lu dul lu mel ni maye jabar mbaa takk fa jabar mba ñu takk la fa loolu moom kenn du ko lu tax kenn du ko jàng moom boo ko defee daa baaxul ba noppi yàqu na yàqu na kon dara newu fa waaye dinga am bakkar bu yi nag ndax lu ñuy jàngit newu fa ndax baaxul teguwul ci teguwaay fa tabaarakallahu ahsanul xaaliqiina ñu xamee ko noonu ñëw nag ci xeetu nu ñuy jote ku def lu ñu tere maanaam lu muy jote xeetu yi ñuy jote nag ñett lañu waaye dañu ci tànnaloo alaaji bi wala alxaaja bi ajaratu bi ki nga xam ne tabaarakallahu juum na def loolo ñett yi nag mu tànn ci benn bu ko ci soob mu def ko benn mooy rendi gàtt wala biko ko ñaareel mooy mu woor googu ñu wax ni moom nga koy jënge wala mu tànn bu ñetteel bi muy juróom benn miskin mu leel leen kenn ku ci nekk mu jox la lu tollook mudd fa tabaarakallahu asnul xaaliqin koor googu nag wax nañu tabaarakallahu ci kaw jàppandalu ak yombaluk lislaam mën nga ko defe ci jamono bu ne ak ci barab fa tabarakallahu ahsanul xaaliqiina bu ne kon mbokk yi di mbokk jullit yi ñuy gën di bàyyi xel rek fu ñu toll di gën di bàyyi xel fu ñu toll or ma ya nga xam ni barab boobu laaj na ko ñu koy bàyyi xel fu ñu tol or ma yooya nga xam ni barab bu sell boobu laaj na ko fa ñu dëkk mal jëm fa mooy dëkk ba nga xam ni yàlla wax na fa foofa ca suufas màkka googale xaramayni sharifayni wa man yurid fihi bi ilhaamin min zulmin nuziquhu min azabin alimin ca suratul xajj la ko wax waxul ku def de ku fa xalaata def mbaa nama nam faa def rek bàkkaar wattul bootul di nga mos ci mbugulum yàlla mu metti ma yàlla na ci yàlla boole musal ci dara yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci li tax ibnu abbas radiallahu taala anhuma toxoo màkk dem dëkki taayif ba fa la mujj faatoo ndax nee na masuma gis mukk fu yàllay tëkkoo ku defagul xalaate def rek walla nga yéene def te defoo ñu tëkkoo la ci ay duma moo tax mu ni gom wóolu ma sama bopp naa dëkki taayif ba fa mujj faatoo kon ñu bàyyi xel orma ya nga xam ni suuf soosa làmboon na ko bu fa kenn xalaate def ba fay xal di def sax loo xam ne baaxul rafas fusuq jidaal la rafasa wala fusuqa wala jidaala fi lxaj werante yaag xultu yow saw yaag yooyu yëpp nemmat yaag yëpp wattul bu ca bokk mukk yàlla na yàlla ci mbaaxam defal ñu dégg ak topp ci daraja yonent bi alayhi salaatu wassalaam bu ñu dellu suwaatee ci biir fàttalente yi ak layante biir yi ñoo wëyaat ci leneen incha allahu taala di ñaan yàlla ci mbaaxam yàlla ñu boole nangul ñu tàggoo te rek tàggoo bu dul tàggoo bu dellu suwaat ak jàmm wassalaamu aleykum taala wa barakaatuhu